Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Event la chaîne événementielle, www.charouinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. May Diagne présidente Mouna Mouna association de femmes la genre ONG lañ ko def di entre ay suñu biir di di ci dem Makka di ci dem ay umra di ci def financement loolu mun naa teg ah xanaa kontaan bu baax rek ndax nag woote ñu wisi la dafa yomb kon nag bu ñëpp ñëwee wuy suñu rek dañuy sant yàlla bu ju Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di kontaan bu baax. man comme li gis nii rek ñu ngi jàppale femmes yi.

léegi nag moom moo pare pour jox femme yi 150 millions ñu ñu di ko def di ko lablante suñu biir. non non ndax man de ñi ma xam ñëpp xam nañ ci développement rek laa yëngu ñi ma xam ñëpp xam nañ ci développement rek ci laa nekk dafa fekk nag développement mënut a dem cent état. Oh, oh, oh. parce que buñ buñu bu ñu dee liggéey ci jigéen ñi am nañ soxla tuuti état mën noo renforcer bi Ablaye ñëwee di renforcer daf noo fekk ci liñ nekkoon ba pare ba tey kon maanaam daray politique lalu ko te Ablaye du candidat kon nag daray politique lalu ñun ñu ngi dem Chine di dem Dubaï di jëndi ay marchandises am na ci ñoo xam dañuy def céréales local ñu ngi def ay transformation fruits et légumes famille ci lépp lañ nekk macha allah. boulangerie ay boulangerie sax indi woon nañ ko fi ci benn ONG ñu ko jox femmes ñu yor seen ay boulangerie on a 60 mille membres yoo xam ne ñi ngi suñu réseau. le Le groupe G8 Media, Digiclick, agence de communication, Charoui ITV, e la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charoinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous.